lii nii euh, mooy wane ne démocratie Sénégal mu ngi mu ngi nokki bu baax te it acte bi ma def act bu bu citoyen la képp kuy sénégalais rek boo amee âge voté am nga sañ-sañ def ko. kon donc nag euh, ma ci am mbégte bi ma ko yàlla maye ba tey ma mën a toog di def act boobu noonu di it invité askan bi yëpp wax dëgg yàlla njëkk woon li nga xam ne mooy non violence mooy que ne xiiroo ŋaayoo jaru ko. parce que Sénégal ñoo ko book et l' la Sénégal jàpp nañu ne tey li ma sol muy weex dama ñëw pour jàmm dama ñëw pour euh, pour non violence kon ñun tamit tey fii ñu took nii ñu ngi o ñëpp si jàmm jooju noonu te jàpp nañ suñu candidat dina gagné tey incha allah et dès le premier tour. non bi may jël bulletin yi nag comme dañ ma autorisé ma jël cinq bulletins ndax 19 bulletins dafa bëri je pense que sax loolu tamit état war na si gën a liggéeyaat ndax 19 yoo xamante ne boo duggee si bureau de vote kenn amu ci représentant. à part trois coalitions ñoom représentants dans les bureaux de vote et ça également c'est pas normal et que l'État doit veiller à ça et que pour les autres élections à venir que nous puissions arriver à avoir au minimum donc au maximum cinq cinq cinq candidats donc jël naa cinq bulletins sama bulletin candidat ak yeneen quatre bulletins comme ni ñu ma ko autorisé